bokk yi nga xam ne yéen la ñu jàkkaarloon noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bi gën a sell te moo di asalaamaaleykum noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di sant noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di mbaal xàq te di leen balu àq noo ngi leen di ñaanal jàmm tey sàkku ci yéen itam fa ngeen mën ci toll ngeen di ñaanal jàmm yàlla mi xam jàmm te du ko jeexle noo ngi koy doolee ñaan. na ñu yàlla doolu defal jàmm bi hurmat rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal nag sunu way dawlu ya nga xam ne ñoo nga nekk ca këru dëgg yàlla na yàlla jéggal leen seeni bàkkaar yàlla na yàlla xaroo leen xaj na xaata leen cirmande boppam ja ci darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa way tawat yi ñoo ngi leen di ñaanalug njégal sunu borom tabaraka wa mu fëgg seen bopp bañ delluwaat seen sago ñu nekk ci nattu itam noo ngi ñaan yàlla na yàlla teggi mboolem nattu yi nuy delluwaat nag di siyaare mbooleem ummat rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam di siyaare mboolem sunu kilifa yi diine yi waaye di ca jiital nag mboolem ñi nekk njëgal tarixa yi ak tarixa bu mën a doon mu di xaadir di tijaan di laayen di cenaba di ñaseen di salsal baaxu yi ak bépp tarixa bu mën a doon ka nekk ca bopp ba noo ngi ko di ko doolee ñaanal fa nu gudd ànd ak wér yaram di ko ñaanal njaboot ga nga xam ne ñoom la jiite. ci noonu itam la nuy siyaare nag bu baax Cheikh Sidi Mokhtar Khalifa Khadim Rasoul noo ngi koy siyaare bu baax di ko doolee ñaanal fa nu gudd ànd ak wér-gu-yaram yal na yàlla sàmm ko wattu ko te xaar ko te xaaraale nu di siyaare nag mbooleem seexi sëriñ Touba yëpp waaye di siyaare itam mbooleem sëti sëriñ Touba suñu waxee sëti sëriñ Touba yi dinañu siyaare moos ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Mamor Mbacké moom sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacké moom Xaadimu Rasuul noo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di doole ñaan itam yal na yàlla defal ko fanu gudd waxande ak wér gu yaram yal na yàlla dolli koo defal xéewal gu yaatu may ko kàttan yàlla mi nga xam ne moo man tey def itam yàlla yàlla defal ko lépp lu mu naal jëmale ko ci diine ji mbaa lislaam ji yàlla defal ko kàttan lu mu ko yeggalee. mu mel ni nag ni ngeen ko xamee noo ngi àndaat ak sunu équipe bi nga xam ne ñoom lañ baaxoo àndal e, ci caméra noo ànd ak sëriñ maam Thierno Faye réalisation sëriñ Soñ bu Mbàkke Mar waaye rësi nag noo ngi ànd ak sëriñ lamin Touré e, ci faram-fàccee bataaxel noo ngi ànd ak sëriñ Basirou Seck ndongol Daaru Minam waaye nag présentation émission bi ngeen ànd ci ak seen xarit Serigne Ibrahima Ndiaye eh, dellu si nag ci seen émission bi nga xam ne moo di jataayu mukallaf ngeen baaxoo ko amee fii ci sit bii di alazhar touba point com ñu baaxoo nag di waxtaan ak ki nga xam ne moo di Serigne Basirou Seck ndongol Daaru Minam ngir bataaxel bi nga xam ne ñëw na te war noo xamal fi nu war a jëm tey kon dañuy jox kàddu gi sëñ Basirou Seck ndongol Daaru Minam ngir mu xamal nu tey fan waxtaan yi la war a jëm sëñ Basirou asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Uh, wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Uh, sëriñ Ibrahima li ñuy jëkk a def mooy. delloo la nuyoo bi maam di la fay euh, ci nuyoo bu sell bi nga xam ne moom nga def ci ni nga ko daan defee kon ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax di nuyu itam sunu bokk yi nga xam ne di sunuy xarit di sunuy am di jàmm di sunuy soppee nga xam ne ñoom lañuy jàkkaarloo ci waxtu wu nekk ci site bi ñoom ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm di sàkk ñoom ñu di ñu ñaanal jàmm man di toll niñ koy faral di waxee rek mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci darje nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam xam naa kon sëriñ Ibrahima ni ñuy daal def rek mooy day daal jublu kon ci euh, bataaxe bi ginnaaw boo xamee ni euh, tàbbi na ci sunuy loxo. muy di bataaxel bi nga xam ne moo di bataaxelu mag eh, ñuy wax ni mag a koy jàng walla ndaw lu mag yar mu mel ni kon eh, suñ mënta jàng bataaxel bi xanaa dees na ci mën a jàngate eh, kon ñu jëm loolu sëriñ Ibrahima bataaxel bi dafa am ñu booloo bind la ko di la war ne ginnaaw bu ñu jotalee. seen nuyoo ci yow ak seenu ñaan euh, bëgg di ñaan yàlla mu yokk soo fan mu gën a gudd te may la ak wér may la ak wérle nee ñu ngi lay xamal ne day yaa ngi saral seeni xol fu mu toll yaa ngi ubbi it seeni xel euh, ci kaw loolu nag tax na fu ñu toll ñu ngi euh, di jéem di teewlu ci say waxtaan euh, di defit lépp loo xam ne am nañ ko lu leen xaw a jaaxal ci woowu wàll euh, dañuy bëgg jotal la ko ngir nga mën caa ubbi seeni bopp mu mel ni kon dañoo wax ne ñoom dafa am histoire bu ñu yàgg dégg euh, moom lañ bëggoon tey nga waxtaanal leen ci mu di histoire ki ñuy wax Sonko Aminata Diop histoire am ak Lat Dior neen daal ci leen bëggoon nga waxtaanal leen ci tey. jërëjëf sëriñ Basirou Seck ndongal Daaru Minam jërëjëf itam mbokk yooyu nga xam ne ñoo bind bataaxel bi yónnee nu ko ñaan yooyu nga xam ne ñaan nañ ko itam jëmale ko ci man jëmale ko itam ci équipe bi may àndal yàlla na yàlla defal na ko. muy ñaan gu matale ci bépp doomu aadama rawat na ci bépp jullit te yal na yàlla nangu ñaan bi xurmati rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam gannaaw bu ñu leen delloo njukkal ci ñaan yi nag ñu rafetlu li nga xam ne itam moo di waxtaan wi nga xam ne noo koy def kon dafa mel ni ñu ngi sàkk ku leen ndil ak leeral ci mbirum Sonko Aminata Diop digganteem ak Lat Joor lu ko indi woon xam naa ñu ngi bàyyi ko woon ci doxandéem diggante Mamadou Machina mari la Seexu ca Segu Bandankoro la indi woon histoire diggante baykat ya ak buur ba xam naa histoire bu mel noonu itam dafa xaw a demee ni histoire Sonko ndax Mamadou Masina li ñuy wax bañkat la révolutionnaire la waaye Sonko Aminata Diop itam mënees na koo àttee ci noonu wante daal buñ leen di nettali mbirum Sonko la ñuy jëkk a wax li ñuy faral di wax waxtu bu nekk wax ne histoire gannaaw nekkut lu ñu bind nekkutit loo xam ne xeste la lu may nettali la wax naa ne nettali mën naa am ak juuyoo waaye bu kenn ne du nii nii laa ko déggee daal mas na ko wax waaye du nii daal bokk ci xel ndax kenn ku nekk nanga nga dégg rek nga maa nettalee kon Sonko ame Aminata Diop bu nuy nettali histoire dañu koy dalee ca ndey ak baay ba moom ame Aminata Diop moomu nga xam ne moo nar a Sonko laataa Sonko di juddu. diggante yaayam ak ki nga xam ne moo di baayam fa ñuy tàmbalee Aminata Diop moomu nga xam ne moo jur Sonko ñu ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax yoof defe naa ñu bari xam nañu ko ci sowu jant la féete ki nga xam ne nag moo di baayub Aminata dafa nekkoon ko lislaame ñu yoroon jikko yu rafet bokk na ci ko la bokk na ci lu mu wax kenn du ko nattable naan am naag amut ñaareel lii nga xam ne sax dana indi yooyoo léeg-léeg ci jamono te mooy lu mel ni weer yi nga xam ne des koy séentu di ci barke lu mel ni weeru koor wala lu mel ni ki weeru koor yi ak yu mel noonu daanañ def dëkk ba te moo di yoof bala ñu caa mën dañuy laaj ba xam ndax ki nga xam ne moo di baayu Aminata ndax gis na ko wala ndax gisu ko ngir ak maandu ak ku wéram lu mu ne noona la noona la waaye lu mu ne it wóoru ko dañ cay teey taxoon na waa Yoof teg ko foo xam ne it fa tabarakallahu donte nekkutoon kilifa diine gu jiite tariixa itam nekkoon na kilifa gu waa dëkk ba doyloo ci lu bari mu boole koy nag ak nag ku jàng la alquranil karim ku jàng xam-xam la téere yu bari géeju na ci ngir lan ngir bëgg gum bëgg jàng ak xel mu ko yàlla defoon ci moom soxnaam si nga xam ne itam ndax yoroon na ñaari soxna waaye ki mu amal nag Aminata nga xam ne moo di aawo bi Aminata moom itam bi mu koy takk te moo di ab aawam daf ko tànn xool ko mu nekkoon jigéen ju maandu mu nekkoon jigéen ju teey mu nekkoon jigéeni jaamukatu yàlla ba nga xam ne moom itam ni boroom këram mel ci boroom kër yëm dëkkandooloon ca yoof kooku itam jabar ji noonu la meloon ci moroomi jeegam yam doon sëyandoowul ca yoof nga xam ne waxtu woo xamee ne dégg nga coow nañu xam ne coow la soxna si bokku ci du xuloo du werante li gën a jafe nag moo di du jëw dippi mu wàccee yoof googu di sëy ba ni mu dem ba am fa ame Aminata Diop mi nga xam ne tey doomam la ñuy waxtaane mësta weranteeg moroomam jéegam yàlla tere nag borom këram wax mu teg ci baat sëy na sëy bu rafet déggal na ko nangul na ko gëm na ko topp na ko teyit du moy boromam benn yoon du dem te tàggowul te itam du daloo lenn te dul da koo ŋàbb ba ci borom këram ne ko ñaanal ma ci nekkoon na daal koo xam ne Euh, wax dëgg yàlla ku ñu doon roy la yàlla dogal nag ci seen diggante ñu taawloo doom bu góor bu ñuy wax seega waaye nag ñaar la doomam mooy Aminata jóob mi nga xam ne moom la am ak Massaer Diop Aminata Diop moomu nag naka la. xammi rek daldi topp tànk ndey ji ak baay def xale bu yaru def xale bu sawar def xale bu teey waaye nag def xale bu xam ngor te nangoo liggéey def itam xale boo xam ne lenn ci lu ñu po mësu koo def du caaxaan xamu ko dem ba nga xam ne nag mat naa am boroom kër waaye waa yoof gi nga xam ne fa ñoom la dëkk kenn ku ne ca ña ko war a bëgg sam nekk na ci Aminata Diop ndax taar bi nekk ci moom ak yar bi nekk ci moom ak teey gi nekk ci moom ak am kilifa gi nekk ci moom di wax ndànk di dox ndànk mel ni ko nelaw te doful ab yara ko ko yóbbee loolu tax na soo masaa dégg si ay waxtaanam ci biir ay moroomam doo dégg baatam lu dul bala ngaa xam ne ma nga ca biir waxtaan wa danga ñëw ba agsi gis ko fa xam ne ma nga woon ca jataay ba waaye doo dégg kàddoom Aminata jóob noonu la yaroo mbooleem nag ña ko war a bëgg si kenn ku nekk waxtaan nga ak say bokk xamal leen na leen man dey Aminata Diop mi dama ko bëgg soxna say bokk xamal la ndax mën nga caa jot wala ndax mënoo caa jot ndaxam ay way juróom jaayuñu ko mayewuñ ko alal mayewuñ ko ab juddu mayewuñ ko taar waaye baayam ak yaayam li nekk ci ñoom muy bëgg-bëgg te mooy lislaam di diine ak alquranil karim loolu daal lañu bëgg fu ñuy dugal seen doom kooka it na mel ni ñoom mbaaboog mu jegeñ leen ki am diine am lislaam bëgg alxuraan taxoon na nag ñi ko bëgg ñaare ku ci ñëw eh, soo dikkee ba baayam tontu la ganale la téye la fa waxtaan ak yow lam lay xamal di ko seet ci yow mooy sa diine ak sa lislaam ak nag foo toll ci alxuraan diine ji mooy dana gis xool ba xam nooy julli ndax dinga julli ndax dinga nga matale sarti julli yi ndax it julli julli gu ànd ak laab ndax doo yéexe waxtu ndax danga teela teel yeew di julli fajar ndax danga nga julli ci waxtu muy xool loolu ci yow ba dana la fa téye lu mat juróom-ñetti fan waaye ci biir juróom-ñetti fan yooyu mu lay téye nag ci lay gisee lu ko doy ci yow ci diine ba tax mu nangul la walla ndax mu gàntal la loolu nag. mu di ko def mën nañ ne def na ko lu mat ñeenti at yu mat sëkk yoo xam ne Aminata bi ñu koy dalee bëgg mi ngi ci fukki atam ak ñett waaye léegi mi ngi ci fukki at ak juróom-ñaar yàlla dogal xibaar ba tas ci tund wa diggante yoof jàmmulaay ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo wër yoof yëpp ñu yëg ne Aminata baayam ku am diine am lislaam am ngor teg ci te bëgg alxuraan la koy may yëg itam ne ñu bari dem nañ fa waaye dàq na leen ngir ku mu seet sa diine wala mu seet sa ngor wala mu seet sa bëgg alxuraanil karim dafay des loolay tax mu dàq la sunu mbokk yi suma caméraman nee na ma nañu dem rësi dellu saa ci biir waxtaan wi àndaat ak yéen ci Aminata Diop. allo Souleymane papa. sa soxna si maam Jaara. maam Ndiaye dafa am doom. jeex na. Mawal Lamine. sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. des desuloo foofu carte. waaw Souleymane xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal ma woon la. Kool Touba. la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga koy jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable. ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal. mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit ak ku la neex. te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp et en toute sécurité. damaa tàmbalee wax rek. Uh-huh. ne ko uh, maam Diarra am na am na gone. kër ko am naa doom rek yàlla baax na. wax naa ko ko. Ah. waaw waaye kër gi baa jeex mu dagg. waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom. ah man de jot naa crédit. am nga crédit. crédit bu bari sax. jógee ci service bu ñuy wax Pôle Touba.

am ah, ah, mu mel ni loolu nag tax na xibaar ba tas ci mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoo wër yoof nga xam ne daal amatul kenn koo xam ne ku des ca tund wala ca dëkk ya wër yoof ku war a bëgg si Aminata ndax ñii bëgg nañ ko waaye baay bi seet na dàq na leen ñenn ñi dal ne ak gannaaw diw day niñ ko xamee ci yiw niñ ko xamee ci maandu niñ ko xamee ci jaamu yàlla moo dem ñu dàq ko kon man du jar may dem ndax wolof njaay danay faral di wax ne ku ne xam nga ki la man danga ko dul nangu waaye ñoom nangu nañu far ya nga xam ne dàq nañu leen nangu nañ ne ñu am ngor lañu ñu am diina lañu ñu am lislaam lañu gannaaw dàq nañ leen ñoom duñ dem ba xibaar ba tasee nag di wëndeelu ba yàlla dogal genn góor gu dëkk dëkk bu ñuy wax Tayba Njaay ba Njaay ñu bari xam nañu ko mi ngi ci boori Mboro nekk ci booru Kayaar nga xam ne boo jóge woon tey fii may waxe tey jëm fa soo dikkee ba dëkk bi ñuy wax cinquante ci ngay jàddee jël oto bu jëm bayax soo dikkee ba bayax ba dugg bayax bay génn bayax dana am ñaari tëli sa ndeyjoor ak sa càmmooy bi jëm sa càmmooy moo jëm kayaar bi jëm sa ndeyjoor moo jëm bayax hôtel bi nekk seen diggante kon tëli boobu jëm sa ndeyjoor ngay jël yow mi jëm mbooro su ko defee nag foofu la mbooro nekk Taïba Ndiaye nekk ca wet ga bala ngay àgg mbooro bu la neexee dem ba mbooro nga jël tali bi jëm Taïba Ndiaye mu mel ni dafa nekk diggante kayaat ak Taïba Ndiaye foofu nag kii nga xam ne moo di ki doon bëgg si nag Aminata Diop mu ngi dëkk nag dëkk bu ñuy wax Taïba Ndiaye ba xibaar ba agsee nag di law ba agsi ñu waxtaane ko ku ne daal di waxtaan ne dig ngeen xale bu jigéen bi nga xam ne baayam ngor ak diini ak lislaam bëgg alxuraan mel ni la koy jaaye ñu ne kan la ñu ne a ah, ndaw si de mi ngi tudd Aminata Diop baayam dafa bëgg alxuraan ba nee na doom ji bëggu ci alal bëggu ci xaalis bëggu ci it ab taar bëggu ci juddu lim ci bëgg daal mooy ku am diine am lislaam ñu bari nag dàq na leen ñii nee ñu mat nañu ñeen fukk ak nangam ñii ne ëpp na ko dàq na lu mat juróom-benn fukk ak nangam ndax ñeenti ati yàlla te daanaka weer wu nekk lu mat juróom-ñetti far ko seet kon ndaw sa ku koy seet danga koy danga koy xool bu baax a baax eh, yàlla def nag mu am nag ca Taïba Ndiaye koo xam ne moom la ñuy wax sëriñ Daawuda Njaay moom nag mbooleem Tayba Njaay tagg nañu ko kañ nañu ko ci mboolem gone yu góor yi dëkk ba ku ko fa gën a bëgg diini amul ku ko fa ëpp lislaam amul ku ko fa ëpp ngor amul boole kook nag ku bëgg alxuraan la foo ko fekk moom lay doxantoo moom lay wayantoo foo tibb ci alxuraan am na ko jàngi na ci bi muy am fukki at ak juróom la def li ñuy wax ñàcc ba bind kaamil ñàcc mooy nga wàcc wàccaat dellu wàccaat dellu ko toppaat wàccaat ba muy ñetti yoon ba ñeenti yoon ñu ne kon ñàcc na nekk na kaang nekk na fóore lan moo di kaang mooy ko tari lan moo di fóore mooy koy gàggante ko tari nga xam ne foo gage moo gàggante la te du jël kaamil bi kon xale bi laataa muy am ñaar fukki at nekk na kaang fóore dafa àggoon nag ci kaamil yi nga xam ne ba mu ko bindee ca daara ja la ko sëriñam yewi dafa doon xalaat ñu ne dafa am jenn daara joo xam ne ku mën a jàng alxuraan dafa nekk ku rafet mbind dafa nekk kaamilam day wow koŋ ba nga xamee nag dégg na ko mu ne nag moom dana fa dem ca daara jooju ngir xaritoog kooka ba mu ñëwee ca daara ja daldi laajte bañ wan ko ko ne ko daara ji de kii moo fi raw ndax moom day ci fukki atam ak ñett bind na ay kaamil yu tolloo atam maanaam bind na fukki kaamil ak ñett te itam kaang la fóore la ku rafet mbind la day bind bay bind ci jaww ji mu déglu nag ba ñuy wax ba noppi mu ne man day kon kii laa bëgg a àndal def ko xarit ndax àndaal ju ne am na aw duppi mu daal di lëkkatoo nag ak ka nga xam ne ca daara ja moo fa sut tañ wax ne def na loolu lépp mu xaritoog moom ba ñu àgg ci benn bis ñoom ñaar kenn ku nekk di wax sa moroom naan ko fu la alxuraan toll mu ne ko maa la gën a bëgg alxuraan maa la gën a mën alxuraan maa la gën a mën a bind maa gën a gaaw bind ñu xas-xas loo waaye kii nga xam ne nag moo di eh, Daawuda mi nga xam ne moo war a bëgg si nag Aminata Jóob moo ko ne bu subaa ci suba teel balaa jéeg jeerooti ca teen ba maa yow nan dem ca teen ba kenn ku nekk bind kaamil ñu waxante loolu asamaan fajar ba ñu fajar ba noppi kenn ku nekk daal di jóg jël sa daa ak sa xalima ak say kayit ñu ñëw ci teen bi mu ne ko maay jëkki mu ne ko nag ni ñuy defee mooy ndax dañuy toog ci pind bi bind am lu ñuy def man de ñeme naa ko ki fekk si moo ko wax loolu mu ne ko duñu duñu toog ci pind bind yow kon xamoo alxuraan. nañ jël ab gattax gàll ko ci pind bi gattax boo xam ne ab soccet sax bu ci toŋee mu damm ci la jël gàll ko ci pind bi daal di ciy toog moom ki nga xam ne mooy bëgg si nag Aminata Diop daal di bind kaamil bi ba mu noppee la kee na ko nan dem fi nga agsi man agsi gu ma fi yow bis ni ki tey takk naa la xarit mu ne kon nag dama doon seet ku ma sut gannaaw sutoo man maa ngi ñibbi kooku nag moo dellu siwaat di ko wax ak ndeyam ak baayam tàggu leen na leen nag dama bëgg a dem yoof ndaw soo su ñuy wax Aminata Diop ma ñaane ko ndeyam ak baayam sunu mbokk yi sama man ak sama réalisateur def nañ ma siiñ xamal ma ne ma waajtaay woo nga xam ne nag kii bëgg si Aminata Diop ma ngi koy waaje tey ma ngi koy waaje yoof jëm si Taïba Ndiaye wala ma ngi koy waaje ba njaay jëm si yoof foofu lañuy tënk nag histoire Sonko Aminata Diop ba beneen yoon incha allah sëñ Bassirou Seck ndongal Darou Minam. jërëjëf sëriñ Ibrahima yaakaar naa ne ñu doon laaj ah, li ñu dégg gun leer na ñu bokk ko déggandoog ñoom muy lu neex lu neex lu leer lu neex mu mel ni sëriñ Ibrahima man. dafa am rek lu ma ci jàngati tuuti loo xam ne euh, da nga ko wax léegi ci biir ni nga waxe ba ne kenn ku nekk xam nga ko la man ñaari ñàkk nangoo fay ne mu mel ni sëñ Ibrahima boo ko dee seet loolu tey mooy dox ci sunu jamono ji ba moo tax toog leeg wax ji bari ak ñiiroo beeg ñaayoo bi waaye sëriñ bi daa mel ni boo ko dee seet ca mag ña loola moom doxaluñ ko woon dañ doon dox mooy kenn ku nekk loola sa moroom suti nga xam ko nangu ko dem na ba ci fi nga daaneele wax ji ci diggante Daawuda moomu ak kim seet si woon bañ seetee ba mu xam ne Daawuda ak suur rek daf ko daal di nangu kon mu mel ni loola nag la koy waral mooy mag ñi ñoo doon teel a xamal gone yi kenn ku nekk ca la nga war a nekk. nit ki sëñ Ibrahima bu xamee la ko war xam la mu war a ne xam la mu war a def lu yàlla def nangu ko loolu moo war taxoon coow ak ngir ngir loo xëccoo yooyu yëpp dara dootul am lool na lañ fi jëli te war ko delloo si waat waaye sëñ Ibrahima dafa mel ni waxtu wi euh, kocc na ba noppi tey toujours ni ma koy waxee sama waxi bopp déglu la daf ma ko ëppal solo bu wér a wér tey leer na ma ni ñuy déglu it <laughs> moom yow lañ gën am solo ci di déglu ndaxte diw man diw maay wax ñu doog a xam ne diwee wax bokkut ak diw mi nga xam ne bu tàmbalee ñëpp ne déglu leen bàyyi diwee wax waaw kon euh, ni ñuy def rek mooy jéem a tàggatoo ak suñu bokk yi di suñuy xarit di suñuy soppee ñi nga xam ne ñoom lañu jàkkaar loolu leen ñaan rek euh, jàmm tey sàkk ci ñoom it ñu di ñu ñaanal jàmm mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole wax fër la naa waxaafi naa bi haafiya rakkoon fii daal di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. jërëjëfati sëriñ Basirou Seck ndongal Daaru Minam euh, mu mel ni foofu nga tëje li ñuy wax ne amul commentaire tàkkoonu fii daarin xayru afiya lu man lul euh, tàggu ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool xamal leen nag équipe bi ñu àndaloon ci waxtaan wi caméra noo ngi ci ànd ak sëriñ maam Thierno Faye sunu réalisateur nekkoon sëriñ Soy bu Mbàkke Mar. reçu ñu ànd ak sëriñ Lamine Touré ci faram-fàccee bataaxel bi noo ngi ci ànd ak sëriñ Bassirou sekk ndongol daaru minam sama loxol ndeyjoor waaye na ki leen doon présenté émission bi seen mbokkum taalibe seen xarit Ibrahima Ndiaye di leen wax asalaam.